joxoon ma ko mais bon merci en tout cas merci de nous rejoindre dans notre édition spéciale ñu ñëw fas yéene waxtaane installation président Idrissa Seck président conseil économique et social bu bees bi nga xam ne ni fal nañu ko bu yàggul mu war a remplacer présidente Aminata Touré bi nga xam ne décret jëlee na ko fii conseil économique social nag xëy nañu ñu bëri dañu yaakaar nii peut-être lu bees la wala xëy na jëmmi Idrissa Seck moo tax ñu ciy wax mais baax na ñuy wax ni conseil économique social et environnemental conseil économique social et environnemental ci ni mu tudd lu bees la xëy na yàggul waaye nag institution la boo xam ne yàgg na ci architecture institutionnelle bu Sénégal depuis 1963 ñu ngi am conseil économique social jaar-jaar yu bari ay ay kilifa yu bari jiite nañu ko mën na ci citer du tiam nga xam ni kilifa loon ci réew mi président Famara Ibrahima Sagna ci fonction yi mu mujjee occupé président conseil économique social la pendant près de dix ans ba ci mujjanteel gi li gën a récent mooy président Abdoulaye Wade bi mu ñëwee au pouvoir mu créer équivalent conseil économique social boobu def ko conseil de la république pour les affaires économiques et sociales di CRAES maître Mbaye Jacques Diop ndem si yàlla si yàlla na ya xam sedd jiite woon ko loolu mooy law di law ba ñëw tey ñu delluwaat ci conseil économique social ba ñëw ci conseil économique social et environnemental 2012 la ko président Macky Sall def taxawal ko muy institution boo xam ne nii moom moo topp gannaaw institution yi nga xam ne ñoo am ci réew mi bi ci jiitu mooy institution président de la république bi ci topp mooy gouvernement de la république du Sénégal. beneen bi mooy institution parlementaire bi assemblée nationale buñ ci jógee mooy les cours et tribunaux conseil constitutionnel cour suprême cour des comptes bu ñu jógee ci loolu nag conseil économique social environnemental moo ci topp ci suñu architecture institutionnelle bu ca jógee au conseil du dialogue social bi nga xam ne madame Innocence Ntap moo ko jiite bu ca jógee au conseil des collectivités territoriales yooyu yëpp kon da gis ci nekk. am na lu mu war a def am na luy cëram am na lu mu moom ñu bari dañuy faral di xaw a sax wax ni jëriñul dara mais bu ci nekk am na lu ñu ko jagleel mu war koo def ñoom am di bokk ci jotaay bi ak Mbacké Seck maa ngi lay nuyu di la dalal dalalaat la sax ndax ñoo bokkoon jotaay info bi sànq ci sa cërloo am ci parti bu sa Seck waaye it ci kujje politique yi dalal jàmm ñu nar a ànd ci jotaay bi. jërëjëf Ablaye maa ngi nuyu bépp téléspectateur u TFM bu nekk fii ci Sénégal ak bitim réew parce que télé bu ñuy seetaan bitim réew bés bi nag am solo trop parce que dañuy waxtaanee mbiru conseil économique social et environnemental euh, di ñaanal yàlla ki nga xam ni moom la ko président de la république dénk muy Idriss Seck di ko ñaanal jàmm moom ak ñi nga xam ne ñoom ñoo fa nekk ñuy ñaan daal que institution boobu amal njëriñ Sénégal parce que kër gu am juróom fukki at ak juróom-ñaar. du kër gu ndaw kër gu mag la donc di leen ñaanal jàmm ñu am ndam ci li nga xam ni moom lañ fay moom lañ leen dénk ci liggéey xëy na Mbàkke li ñuy njëkk a wax nit ñi euh, mën nañ ko waxtaanee ndax su ma sañee mën nga wax ci turu Idrissa Seck ci turu parti bi nga xam ne mooy réew mi parce que ñoom la ñu boole associé leen ci gouvernement bu bees bi ba tax président sa Seck nangu nekk président conseil économique social jotaay tey bi waroon na mën a ñàkk am déet ci installation moo dul war a mën a nekk ci bësu joxante lenge yi ñu jàll ci leneen am déet lan moo waral installation bi demee nii tey. waaw booy xool ci tradition conseil économique et social da ngaa wax tur yi nga xam ni am na évolution bi ñu koy am 63 conseil économique social la tudd. mu nekk lu nga xam ne du Sénégal rek la am Afrique bëri na dëkk yu mu am boo xoolee Nations Unies sax am na ECOSOC am na conseil économique et social des nations unies nga xam ni boroom xam-xam yi ak experts yi dañ fay tase di xelal mbootaayu xeet yi donc xel mun na nangu su nations unies amee loolu dëkk yu mel ni suñu yos am ko donc euh, tour bi moo changé conseil économique et social conseil de la république ba ba tey ñu teg ci environnemental donc mais sabab bi benn la fexe bay xelal gouvernement du Sénégal fexe bay xelal assemblée nationale loolu mooy sababu conseil économique et social di ko xelal nag xel bu nga xam ni kenn du la wax ni lii ngay wax walla fii ngay yem parce que ña fa ne ñu mel ni journaliste yi seen pik yi man ba may nekk foofu maa ngi fa nekkoon ak doyen Bathily ku mel ni Diatou Cissé yi nekkoon na fa ku xam ñooñu xam ni kenn du leen wax ni fii ngay xool walla fii ngay yem lépp lu seen xel walla seen xalaat nekk danañu ko wax wax ko nag kilifa ga ko war a wax ba pare génne ci xalaat wala génn ci tegtal wala gëstu wax gouvernement bi lii nga war a def suñu ko jëfee baax na bu ñu ko jëfewul baax na mais ci génnewuñ seen xalaat daal amul tënk amul yemale dañu koy génne librement donc loolu am na solo comme ni nga ko waxee installation la tey mais ci tradition conseil économique et social gouvernement bu ñëw am na nu mu koy tuddee mais ni mu koy tuddee bala mu koy tuddee noonu day tas li fi nekkoon ba nga xam ne ki fi nekkoon ak kiy ñëw bees du ñu tase Famara Ibrahima Sagna tasewul ak waa CRAES ni ma Masseck Ndiaye ni mbay Jacques Diop bi ñu tasee CRAES Aminata Tall bi fi ñëw tasewul ak mbay Jacques Diop benn yoon dañ ko tas benn at ñaari at ñu soog a ñëw donc boo xoolee ci wàllu passation même Aminata Touré bi mu fiy jógee Aminata Tall war ko rempla bi mu fiy jógee Aminata Touré war ko amul passation donc ci tradition wu conseil économique et social mënuñu la wan benn yoon passation bi nga xam ni ki fi jóge ak ki bees kiy ñëw ñu ngi koy def mais li am solo saa yi ñuy def passation bi ka nga xam ni présence am dafa indispensable muy inspecteur général d'état bi jiite mbir yi ma nga fa teew ca ka fay jóge ak ki nga xam ni moom la ñuy dalal bees donc cérémonie bu am solo la mais ci tradition wu conseil économique et social fàttaliku ñu fu nga xam ni amee na fi li ñuy wax faral di wax ni institution yi ki ko incarné xëy na moo koy jëmmal président Idrissa Seck lan la war a mën a jëmmalee conseil économique social et environnement ba mu jógee ci gis-gis bi nga xam ne xëy na Sénégal yu bari am nañ ko ci institution yu bari ci biir réew mi souvent yaakaar ni jëriñul dara wala case clientèle laak yooyu lan la président Idrissa Seck mën a jëmmalee conseil économique social soppi doxalin ba mu fës ci kanamu sénégalais ni am na njëriñ waaw dafa gis naa sa liggéey da ngay gëstu lu bari soo gëstoo conseil économique et social ni mu meloon bi ko Famara Ibrahima Sagna di jël ak ba mu fay jóge am na différence commençant ci batiment bi batiment bu ndaw la woon commencé xar am ay herbe sauvage Famara ñëw moderniser ko def ko building bu nga xam ni fu ne kilifa jóge na fa directeur banque centrale Afrique de l'Ouest ay directeur fonds mondial fu ne kilifa jóge na fa ñëw waxtaan ak waa conseil économique et social ci njëriñu conseil économique et social boobu donc ci wàllu forme ak ci wàllu fond ak ci contenu bi conseil économique et sociale sans gêne ci wàllu composition aussi conseil économique et social def na évolution parce que dañu am ñetti xeetu conseil yu fa nekk am na conseil yi nga xam ni mbootaay ya ñu bokk ñu mel ni journalistes yi ñu mel ni pêcheurs yi ñu mel ni paysans yi dañ leen di wax yónnee leen ñetti tur ñu tànn ci kenn xool kan moo ci gën a xarañ mu toogal seen kuréel ci conseil économique sociale social ñooñu bu ñu fa dajee nekk lu tolloog je pense de xaw ma 48 encore chiffre bi xaw na ma échappé du ñu yem ci ñooñu dañuy jëli expert bu nga xam ni kenn yónni ko mais Sénégal xam nañ ni xam-xamam màcc na ci bërëb sàngam damay joxe exemple rek bu nekkoon sportif yi soo jëli woon ku mel ni jaaba athlète dina leer ni xelam màcc na ci wàllu sport ku mel ni Ablaye Diaw boo ko jëlee ci journaliste sportif dalay leer na xelam wàcc màcc na ci ñooñu boo leen dajalee loo leen laaj ñu gëstul la ko danañ la ko gëstu te danañ ko def sans contrainte ku mel ni Idrissa nga xam ni nit ki mu remplacé la mel yàgg na service état bi nekk na premier ministre nekk na directeur de cabinet xam na état nan lay doxee xam na naka la ñuy defee. complémentarité ci liggéey bi yan jéego nga war a toog ba li ñuy jàpp mu jóge ci wax dem ci jëf parce que loolu moo am solo li ñuy jàpp mu jóge ci wax dem ci jëf xam na naka la ñuy jëlee décision xam na nan la ñuy fexee ba action efficace ku mel noonu boo ko dénkee conseil économique et social te waru ci lu dul njëriñu Sénégal yaakaar nañ ni jàmm dana ci am. ci ni nga xam ne nii wax nañu ni abi consultatif la gouvernement président de la République. assemblée nationale mën nañu saisir conseil économique sociale laaj ko xalaatam am obligation it ci laaj ko xalaat ci lépp luy programme te mu am impact caractère social environnemental ci li nga xam ne nii ci la réew mi toll te mu toll ci lu mel ni que sëlëbe yoon ci lu bari loo xam ne ni ñu ngi koy def te ñu léeg ñu jàpp ni xëy na sédduñu ëllëg ci wàllu environnement ci wàllu njeexital lu muy am ci suñu dund ak yooyu est-ce que lu mel nii am na ci solo pour nit ñi gis ci seen bopp. waaw am na ci solo kenn ku nekk ci ñun da nga koy wàcc sa niveau bopp Ablaye saa yoo amee émission ci sujet bu mu mënti demee am na koy woo laaj ko xalaatam mu yokk la xam-xam dëgëral yenn certitude yi sa bopp mais yenn yi nga amoon mu nekk préjugé mu dund ko ci yow donc. conseil économique et social noonu lay doxee gouvernement bi am na sañ-sañu ni ko yéen ñi nga xam ne askan wi ngeen di représenté directement wax leen ma li ngeen xalaat ci nangam ngeen jox ma ci seen xalaat. Mm-hmm. wala jox leen ma tegtal ci nangam ñooñu gëstu ko wala gëstul leen ma ba mu xóot dossier sangam ngeen wax ma li ngeen ci xalaat donc ñett yooyu la conseil économique social di doxee dana joxe xalaatam. dana joxe tegtal dana gëstu aussi gëstu bu xóot approfin approfondissement des questions dañ koy def en permanence ak ay experts yu nga xam ni dañu am indépendance parce que différence conseil économique et social ak yeneen chambre yi foofu mun nañ la orienter mun nañ la wax ligne éditoriale bi bu mooy utiliser seen jargon. dañ la wax fii lii mooy ligne éditoriale bi nii nga war a gisee waroo gis avec contraire tu es obligé de te conformer alors conseil bi dans sa globalité dañuy xool ni mi gënee te lu mel noonu Idrissa théorisé na woo ko woon 2016 bi mu ne nañu créer le conseil suprême de la république jël ay sénégalais yu nga xam ni seen xam-xam màcc na ci ay domaines jël ay sénégalais yu xam ni. assumer nañu ay responsabilités yu mag a mag jël ay sénégalais yu nga xam ne ay opérateurs économiques yu averti lañu wutatuñu alal wutatuñu tur njëriñu Sénégal rek moo leen tax a jóg ñu ciy xalaat di ci réfléchir di jox gouvernement yi seen xalaat ni ko Amérique amee ni ko Suisse amee ni ko même Nigéria amee te mu nekk lu nga xam ne dafa amal njëriñ seen dëkk ku mën a joxe xalaatam xalaat bu wér te wut ci lu neex ma sàmba wala lu naqari ma dem ba xool. kese fu njëriñ Sénégal nekk ku am xalaat bu mel noonu dajale ñooñu suñ la dénkee kuréel gu nga xam ni dajale na ay sénégalais yu nga xam ni euh, intérêt Sénégal rek moo leen tax a jóg je pense que mën nga fa def liggéey bu mucc ayib mu ngi njort daal mën nañ ko cee am njort bu rafet. xëy na aussi fi mu wutee ak yenn institution yi nga xam ne ci falin lañu koy lañu fay nekkee te fal ñu yaakaar ni policiers yi ñoo koy seq conseil bi 120 membres la yëpp dañ leen a tànn tànneef bi nag dafa tegu ci. fu ñu bokk organisation socio professionnelle personne qualifiée mu am répartition boo xam ne nii moom moo ci ne est que loolu mën na doon lu koy muccal ci xëccu ak kujje politique ci biir institution bi. waaw biir institution bi ni ñu ko tëggee ci majorité bi xëcc kujje mënu fa am kujje xam-xam lay nekk kujje expertise lay nekk kujje lu defar Sénégal lay nekk dañ may reetaan nañ ma bërki démb sax sama benn xarit mu ni ma seen conseil municipal euh, bi ñu leen falee bi weer wi deewee ñoom ñëpp dañuy jubali perception municipale parce que dañu war a fayee ko pour te dire que ñooñu xamuñu sax lu tax ñu fal leen mais conseil bu mel ni conseil économique et social ku ñu fa jël bala ngay dem kuréel ga nga bokk ñoo lay wax lan nga fay defi ñu tànn ñett ci seen biir lan ngeen fay defi ak lan mooy seen cër xalaat bu ànd ak liberté xalaat bu ànd ak ñooñu fu ñu tasee defe nañ du kujje moo fay ëpp solo du rivalité moo fay ëpp solo la fay ëpp solo daal mooy lan mooy njëriñu Sénégal ci mine yi nga xam ne ñu ngi koy exploité ah, Taïba lan mooy njëriñu Sénégal ci mine yi nga xam ne ñu ngi koy exploité dugg ah, dans le Sabodola bu ñu amee ay minier ak ay experts yu ci wax te du yem ci conseil yi rek conseil économique et social am na environnemental am na possibilité commettre expert indépendant mu defal ko gëstu bu wér nit ñi nag soog si joxe seen xalaat ñu soog a génne avis recommandation indépendance boobu de de pensée bi ak cette possibilité d'approfondir toutes les question y compris les lois parce que loi bala muy jaar assemblée nationale conseil économique mën na ko laajal boppam comme assemblée nationale mën na ko dénk loolu la ñuy woowee. indépendance boobu bu tegoo ci ku ko jiite décret. Mhm. bu ñuy wax xam nga am na différence ak. institut ci jàng wax nañ ci sànq wax nañ fi sànq sax ci taarixu conseil économique social ni mu fi jaaree mais am na ci benn boo xam ne am na particulière ci muy conseil de la république pour les affaires économiques nga xam ne président ba du woon décret moo ko fi tegoon ba mu tegoo mënatuñ ko woon a révoquer bii bu ñu nekkee ci institution boo xam ne xëy na kilifteef ki ci boppam décret la est-ce que loolu euh, mën na tekki indépendance. waaw mën na am limite parce que boo xoolaatee wala nga comparé ko ak CRAES. nga comparé ko ak CRAES wala nga comparé ko ak institution yi forte yi nekk États-Unis nga xam ne dañuy fexe indi président bu nga xam ni indépendance am du dafay dootul dépendre mhm. ci même ki ko nommé bu mu am liberté d'action mais ñun nu ñuy tëggee suñuy institution loolu mun na nekk limite objectif parce que kuy wax nag da ngay waxal yàlla rek quoi mhm. am na liberté yow bu la leeree ni am nga juróomi at yi wala ñetti at yi lenn mënu la fa jëne tant que sa mandat jeex mun na am liberté bu ëpp boo xamee ni saa yoo waxee lu contraire lu dëppoowul ak ki la fa teg na muy xalaatee mën nga fa jóge mën na am limite mais ku xam président Idrissa ni muy doxee ci lépp lu muy dugg njëriñu Sénégal la ciy dugal lépp lu mu nekk dëgg la siy jiital même bu ko dëgg boobu wala njëriñu Sénégal bi nar a xañ réew mi Idrissa noonu lay doxee man loolu laa xam ci moom fukki at ak juróom yi ma ànd ak moom donc loolu waroon nekk euh, contrainte mën na ko bañ a nekk parce que dëgg lay jiital ak intérêt Sénégal fu mu toll. débat boobu dañ si ñëw ci kanam bu ci xajee sax Mohamed Samb Mohamed Samb ñu ngi lay nuyu yaa ngi siège u conseil économique social et environnemental yéen a ngi waajal xew gi fu mu toll est-ce que président Idrissa Seck yegsi na gannaaw du passation de service donc euh, du ñu wax mbiri euh, soxna si nga xam ni moom moo fa jóge te joxe lenge keroog. bi nga xam ne def na ko ci teewaayu administration bi foofu est-ce que président Idrissa Seck yegsi na ndax gan ya moom dafa ne gisoon nañ ni am na ci ñu yegsi kan moo fa nekk ak fu ñu ci tollu Mohamed dalal jàmm. waaw Abdoulaye Cissé mi lay nuyu di nuyu mbokk téléspectateurs yi exactement président Idrissa Seck agsi na fii nga xamante ni moo di euh, siège bu conseil économique social et environnemental pour. Euh, dalal biñ ko war a dalal fii ci kër gi ngir mu tàmbali liggéey bi agsi na léegi nii gannaaw ba nga xamante ni si bàkk nañ fi euh, hymne national bu Sénégal moom nag agsi na ci délégation boo xamante ni nemmeeku nañ ci ay ci ay kilifa yoo xamante ni euh, ràññe nañ leen si réew mi ci wàllu politique moo xam ki fi nekkoon euh, njiitu conseil économique social et environnemental di Aminata Tall gis nañ ko fii mu ngi am tamit ci teewaayu euh, ñi nga xamante ni ñoo di ay kilifa politique si mel ki nga xamante ni moo di Abdoul Mbow Déthié Fall euh, Malick Gakou bi nga xamante ni ñoom yàgg nañ di ànd ak sa Seck ñoom ñëpp ñu ngi fi ci mbooloo boo xamante ni takku na depuis euh, neuf heures daanaka gis nañ ni salle bi nga xamante ni ci la ñuy amalee installation fees na dell mu nekk nag lu muy fàttali bi ñu gisee sa Seck motaar yi dar ko muy agsi si kër gi muy fàttali rek bi fi nekkee Euh, président euh, bu fi nekkee euh, premier ministre nga xamante ni ñoom ku ci génn ci wàllu délégation ñii di motaar yi ñoo lay dalal image boobu la ñu fàttaliwaat ci jamono bi nga xamante ni si bokkoon na ci nguur gi ci jamono président Abdoulaye waat alors leneen li ñu gis tamit moo di tey instant yi li gën a nekk ci wàllu attente yi li ñuy xaar mooy yore lu kër gi di conseil économique social et environnemental gannaaw ba nga xamante ni moom dem na daal di nekk ci wàllu nguur gi moom Idrissa Seck ci jamono boo xamante ni ñu bëri ñu ngi euh, waxtaanee li fekk mu daal di amal li nga xamante ni moo di transhumance su fekkee mën nañu ko tuddee noonu donc lii daal moo nekk li nga xamante ni euh, moom moo amoon fii euh, Abdoulaye Cissé fii ci conseil économique social et environnemental. Mohamed est-ce que xam nañu protocole bi comment ça va se passer comme yegsi na est-ce que xam nañu lu tax tàmbaleegul dafa am ñu muy dajeel ñu muy waxtaanal lan la protocole bi décidé foofu lu ngeen ci xam. waaw pour le moment bi mu accès euh, déjà moom mu ngi woon di euh, ci ci ci fi nga xamante ni xëy na mën nañ wax moo di euh, bureau parce que liñ jot am ci xibaar moo di am na yenn conseillers yoo xamante ni jot na jot na waxtaan ak ñoom laata muy dugg si salle bi moom nag comme mu ngi doog a agsi li ñuy def rek mooy may ko nopp déglu ko ba xam fan la ñuy mujjee ci li nga xamante ni moo di installation ci ci ci ci kër gi mais laata loolu comme ni nga waxee effectivement am na ñu mu jot waxtaanal ci ay sources yoo xamante ni. wax nañ ne ni diisoo na ak ay conseillers am parce que loolu moo gën a xaw a retardé parce que moom mu ngi agsi à 9h30 9 h na et que depuis boobu mu ngi woon ci xëy na lu ñu mën a duppee concertation balaa muy jàll ci cérémonie bi xam naka lay mun a amee ci euh, fii ci conseil économique social et environnemental. est-ce que service euh, protocole bi jox nañ leen programme chronogramme bi ni muy demee am déet. waaw non non amaguñ ko amaguñ ko mais ñu ngi ñu ngi taaxilu di xaar ah waaw Idi nañu dindi ci nañu dindi ci kumpa nag Mohamed ñu ngi lay gërëm ñu ngi ñëwaat léegi xam naa ne ci kanam ah euh, bu ñu xamee rek euh, fan ban lay tàmbali dina ñëwaat cérémonie bi ñuy wax téléspectateur di ngeen ko am en direct allah di ngeen suivre certainement il fera un discours euh, jàpp nañ ni moom rek mooy war a wax xëy nañu koy dalal mais xamuñu nu muy demee Mbacké lan lañ jàpp ci au delà de solennité wu <laughs> événement bi xëy na président Idriss Seck moo ko bëggee nii aussi ñu def ci une certaine solennité bon c'est vrai que loolu moo tax tey ñun ñu def ci édition spéciale am na yeneen i président conseil économique social yu ñuy fal taxuloon lii am xëy na am na moom ci boppam lu mu ci namm lan nga ci jàpp. waaw institution bu mel ni conseil économique et social ak bépp institution bu am Sénégal li koy jëmmal solennité de l'événement bi dañuy wane que lii du événement bu ordinaire. parce que ñuy xelal chef de l'État ñuy xelal assemblée nationale euh, bàyyee ko ci peuple bi fu ñu dajee war nañ ko jox gëdd war nañ ko jox cër loolu moo tax membre conseil économique sociale ñu def leen depuis quelques ans depuis temps Ibrahima Famara Ibrahima Sagna ñu teg leen ci condition de travail yu baax andi leen administration bu fonctionnelle andi leen ay experts yu de haut niveau solennité boobu nag mooy di ko waral mooy la ñuy gëstu ak la ñuy liggéey lu war a am solo du caaxaan nekkatuñu nekkatuñu nekkuñu ci lu nga xam ni fla fla la wala amul profondeur ci li muy def lu war a solo solonel dañ koy jox gëdd bi ba mu mot sëkk passation bi ni muy demee président dina ñëw départ parce que fekk na fa bureau waxtaan ak waa bureau ba dina nekk premier contact am wala deuxième contact parce que conseil économique social am na ay vice président am na ay secrétaire élu am na lu tolloog une vingtaine de présidents de commission ñooñu xëy na tey mooy première rencontre ak ñoom parce que bi ñu ko faleeg léegi ça fait juste dix-huit jours ci diggante bi lu ne jaar na fi c'est important bu ñëwee solennellement bala muy yegg ci salle bi mu toog ak ñoom waxtaan ak moom ku nekk mu commencé familiariser wu ak nit ñi li am solo mooy ñu si ëpp ci ñoom familier na ak ñoom man wér na ma ni président ku min bay di àññ wér na ma ni ku xam war a gànn sekk la wér na ma ni ku yàgg déglu Birahim Seck la wér na ma ni ña fa ne comme le président du Congat Diouf mhm. président ku leen yàgg déglu la ku leen yàgg bàyyi nopp la parce que loolu mooy waru garam en tant que décideur en tant que acteur politique ñi nga xam ne ñoo mel ni yow bokk ci force dynamique u Sénégal yi ah, yàgg nga leen dégg yàgg nga leen gis bu la yàlla defee nag nga war leen jiite war a waxta yore seen kàddu war a war leen déglu aussi ñoom jaar na bu ñu lay dalal foofu bala nga yegg ci saal bi ci mbooloo mi devant les cent vingt conseillers devant aussi le public qui ak la presse nga toog ak ñoom dans ton bureau ku ne nga saafantoog moom euh, ñaanalante bala ñuy yegg ci saal bi euh, am nañu mbégte trop aussi bi ñu nee aminte Touré mu ngi fa parce que moom aussi def na fa liggéey bu rafet man dama koy wax rek ci tulu baie de Hann bi ma dëkk recevoir na une forte délégation de la baie de Hann ñu lan mooy seen jafe-jafe te c'est une écoute très attentive la ñu joxoon te def na ko ak yeneen i groupement donc moom aussi il faut ñu il faut ñu féliciter ko euh, ci li nga xam ni moom la fa liggéey avant mu fay jóge Aminata Tall moo fa nekk jaar na ci kër gi yegg si na sax moo euh, Mouhamed sax mu ngi ñu koy wax sànq ci au titre des invités certainement en tant que qu'ancien président aussi de, du conseil économique social absolument c'est des tradition de culture et de teranga c'est des tradition yu ancrées si ñu nii nii nii nga yaakaar nii Aminata Touré Aminata Tall nga wax ni ñu wax ni ma nga fa nga ne ci tradition la mënoon nañoo xalaat Aminata Touré nekk fa am déet invitation la wala lu waroon na mën a nekk la. waaw mënuma ci sore trop mënuma ci trop sori trop parce que maîtriser wu ko. mais mais bu fa nekkoon luy rafetlu dama rek ci sa wax parce que bi ma tuddee Aminata Tall nga ne tradition républicaine bi la. Mhm. kii fi door a jóge léegi. Mhm. tradition boobu waroon naa mën a tax mu teew fa am déet. waaw bu bu kër ga amoon tradition passation. war na fa mën a jàll waroon na mun a teew mais li ñu dégg ci presse bi fan yi aussi dafa dafa neexul euh, kilifa yi tase fa alors que nit ñaa ngi am ay soupçons te lu wér li ma wér ba wóor te ma xam ko ci Aminata Touré fu mu jaar ci gestion waruma xalaat ni war na fa mun a def njombe bu nga xam ni du fa mun a tegaat tànkam euh, li ma xam ci moom ci servir le Sénégal ak bëgg jëriñ réewam li ma wax si yow sànq rek yaa ngi woon à l'étranger da nga ñibbisi moom ma nga woon à l'étranger dafa ñibbisi pour jariñ réewam te Idrissa son créneau c'est servir le Sénégal ñooñu ñu am divergence wala ñàkk waxtaan ba dëgg euh, euh, ba déggoo du fa am su amul tey dina am suba mun naa njort loolu parce que yàlla def na ni ñaari personnalité yu ma fréquenté la et je pense que seen xalaat ak seen jëfu tous les jours mooy njëriñu Sénégal te fu mu fu mu war a am danañ fa tase waxtaane ko jëfe ko su teewoon doon na gën a taaral bés bi mhm. su fa nekkul aussi danañ fexe bés bi continuer taaru mais ku jégi dëgëroon na ci ci diggante sax président Macky Sall bi fal Idrissa Seck par décret président conseil économique social ñoom dem nañu au-dessus de leur divergence ku jégi tamit dëgëroon na diggante président Idrissa Seck ak Aminata Touré bi nga xam ne premier ministre la woon directrice de campagne ak yooyu ci ci wax sax dëgëroon na est-ce que mën nañoo jàll au-dessus de ça teg Sénégal ci kanam comme ni nga ko waxee. waaw mën nañu mën nañu mën nañu jàll au-dessus de ça parce que wax ji dëgër na ñagas na quand mais loolu moo jaadu parce que dañu nekkoon dans l'adversité politique ensuite ay vis-à-vis ñoo doon wax Idrissa ancien PM la premier ministre Aminata Touré ancien premier ministre la. kaddu ancien premier ministre jëm ci ancien premier ministre moo ëpp solo su nekkee kiy wax ci suuf mësul assumer responsabilité yu tol noonu nit da nga koy jox cëram jox ko gëddam donc su un ancien premier ministre critiquer un régime xel mun na nangu que un ancien premier ministre tontu ko yore la répartie donc loolu mën na yem ci loolu te la ñu doon waxante gisin dong la ci wàllu Sénégal gisin la nii laa gisee kii ne ko nii laa gisee sa gis-gis baax na kii ne ko sa gis-gis baaxul ci loolu la ñu yemoon te gis-gis yëpp xaw xaw na weesu loolu quand ah. parce que déedéet <laughs> amul benn animosité amul benn <laughs> animosité ni ma koy waxee. Euh, ku nekk dangay wax ak sa nawle. <laughs> am na ay say rakk journaliste. Hmm. suñ la diffamé woon tey doo ci tontu. li ma wér te wóor doo ci tontu Ablaye am na say rakk journaliste yu génn ki démb suñ la bindoon tey diffamé la et xëy na sax ñu ngi koy def ci net bi doo ci tontu mais am nga xeetu beneen euh, niveau de journaliste bu nga xam ni ku la ci luqi bët nga luqi ko bët. parce que ku nekk da ngay am nawle ci li ngay liggéey donc man noonu laa ko gisee man ci li ma def ci wàllu sport bi am na ay jeunes dirigeants yu nga xam ni suñ ma critiquer je peux laisser passer mais je suis à niveau bu nga xam ni su kenn waxee tolloog man niveau mun naa ko tontu. parce que foofu la répartie bi di am sens foofu la tontu bi di am dayo bi mu war a am donc man noonu laa ko comprendre. mais est-ce lii yëpp wanewul nit quand même xëy na dana jafe sax mais mu laaj ko nii fu ñu mën di toll ci kujje léeg-léeg ñuy moytu yenn wax yi nga xam ne xëy na dana jafe pour nit ñi jàkkaarloo ëllëg bët ak bët alors que ñu ngi fàttaliku li ñu li ñu waxante lu weesu nag. Euh, lu weesu gis-gis ci wàllu politique parce que souvent quand même wax yi ci ci ci jëmm jëmm ci ci boppam. Euh, Ablaye entre entre liy génn en public ak nit ñi li ñu mën a waxante mun ko tolérante en privé bokkul. Mhm. adversité amul règlement. Mhm. lii li ñuy wax d'une manière triviale xeex amul réglement mais Mbacké seen salle bi daf mel ni distanciation sociale bi mesure barrière yi moom. <laughs> yàlla daf ñu <laughs> yàlla daf ñu may sutura ci ci ci xeexu ci xeexu mbas mi. <laughs> Uh-huh. Sénégal fu mu ne nii école la ci nan la xeexee mbas mi. suñu résultat moo am solo moo tax xëy na distanciation bi séparé ak taayu saal bi cent vingt personnes fu ñu war a tase plus de ministre chargé des relations avec les assemblées saal bi mën na am étroitesse tuuti te dañu nekk tey bés bu xaw a solennel en tout cas daal yaakaar naa njëriñu Sénégal moo ëpp solo suñuy personnalité fexe ba suñuy doom dootuñu dem ci géej bi fexe ba feebar bu bees bi ñu xam fu mu jógee ak lu koy saafara fexe ba mbas bi nga xam ne depuis juróom-ñaari weer mu ngi lëmba Sénégal naka la amee de bonnes mesures moo ëpp solo la personnalité bi nga xam ne moom moo nekk en face de te ci loolu la ñuy inscrire suñu bopp si loolu la ñuy eh, ñaan kilifa yi ñu inscrire seen bopp aussi. président Idrissa Seck ngi nii def naa ni est-ce que xam naa ne waratula sori euh, peut-être euh, cérémonie bi nga xam ne nii ci lañ koy installé installation la comme on ah c'est parce que passation bi def nañu ko dossier jot na ko Mbacké en naa ñu ñu koy dégg xëy na moom mooy jël parole euh, est-ce que am nañu retour salle bi actuellement non pour l'instant non mais euh, en tout cas président Idrissa Seck président conseil économique social et environnemental est en place Mbacké li ñuy dégg fan yi te def mel ni aussi lu dëggu la ci acte de gestion yu mel ni ku yu mu posé la ci ni diw ak diw taxaw leen maa ngi xool est-ce que loolu bokkul ci luy xaw a aussi Euh, euh, maanaam jiitu sax paaka ma ci mbar mi. waaw xam nga dellu ginnaaw tuuti bi ñuy wax chef de l'opposition war nañ ko fal ak waruñu ko fal bëri na ñu ci doon wax dañuy indi xaalis bi ci kaw war na am kañotu tel war na am kañotu tel euh, conseil économique et sociale nit ñi defuñu focus defuñu attention. ci contenu bi ak lan mooy liggéeyam mais li ngay gën a dégg ci discours bi mooy nangam nangami milliards la nangami milliards la nit ñi ñoo. focaliser wu ci wax nañu ne muy bon. maintenant nit ñi ñoo focaliser wu ci tout aussi. mais kan mooy hmm. Idrissa Idrissa c'est un auditeur de profession. Hmm. auditeur de profession la boo ñëwee fenn fu bees jaadu na nga def. audit organisationnel bi xool kër gi nan lay doxee ak ñan ñoo fi nekk. ku nekk lan mooy cëram mais terewul nga toog ci boo toogee aussi nga mën ko xool. xëy na c'est rare quand ñu gis nit ñu jox ko poste. mu ne non balaa may dugg damay xool xool xool loolu. vraiment loolu amul quand même ci trajectoire trajectoire politique gu Idrissa ci li ko boole ak Wade boo ko dajalee ak sa profession d' auditeur dafay expliquer li muy def. ku nga xam ne jiiñ nañ la pendant longtemps ay milliards te kenn mësul génne preuve te loolu nekk ba léegi pratique républicaine bi xëy na waru ko nattee ci jëmmi boppam rek non natteewu ko ci jëmmi boppam dama ni la bu ñu boolee loolu wees woon ak sa profession d'auditeur jaadu na bu ñu lay jox institution bu mel nii nga séq ko ak say nawle ku nekk am ciru population bi bala ngay teg sa tànk fenn mu leer ni fan nga koy teg c'est des mesure barrières comme on dit mën nañ ko jëlee léegi pour parler un langage très très actuel des mesures barrières qui permettent de stabiliser fi nga xam ni moom la nar a gérer te daf ko bëgg a gérer est-ce que du ñaaw njort tamit bu ëpp déedéet du ñaaw njort c'est des c'est c'est des principes de précaution qui peut précéder tout acte de gestion bu nga xam ni danga koy bëgg a teg ci ci yoon li wér ba wóor mooy ki mi fa remplacer bi mu ñëwee aussi lu mel noonu xaw na ko fa def xool lan la fi fekk ak nan la ko fi fekkee ak ku ci ne lan nga doon liggéey ak naka nga koy liggéey loolu lu naturel la dans une gestion service boo mënti nekk boo fa baissee nga wax ko wala ko ña nga ñàkk ko wax am na bët booy xoolee maa ngi dal je en période d'observation mais institution bu toll nii sooy def lu mel noonu aussi mënoo ko def en catimini il faut ñu xam yan acte ngay poser bala ngay teg sa tànk fenn. président Idrissa Seck bi ñu fal il y a de dix-huit jours président conseil économique social et environnemental moom mooy. moom la ñuy installé tey alors protocole bi wax nañu ko salle bi bu ñu ko mënee am sax parce que président Idrissa Seck yegsi na foofu ci salle bi xam naa ni du waratul yàgg dara mu jël parole ñu leen di fàttali ni conseil économique sociale et environnemental bi membre membres lañu yépp dañ leen a tànn du institution boo xam ne ci ay élection lañ leen di fale ñëpp dañ leen a tànn ñi ci ëpp. ay organisations socio-professionnelles la ñu représenté moo xam syndicat patronal syndicat liggéeykat yu mu mën di doon seeni ñoñ ñoo leen tànn ci proposition yu ñu def président de la république tànn leen am ñoo xam ne personne qualifiée lañ leen tuddee maanaam ràññee nañu leen ci seen liggéey ci seen xarañ ñu teg leen fa ak ñeneen ñu représenté yeneen organisation société civile ak lu mën di doon donc loolu moo ko constitué muy 120 membres yoo xam ne nag avis consultatif la ñu am maanaam dañu leen di laaj seen xalaat président de la république wala assemblée nationale mën nañu leen a laaj seen xalaat ci loi bu ñu bëgg a def ci programme bu ñu bëgg a tëral waaye ci xal xalaat la yem seen ñoom li ñuy def di ko liggéey du ñu ko forcer président ne ko alakul xaal nii ngay defee wala président amul obligation jëfee ko di sa préra yaa ngi foofu ci salle bi aussi Disa ñu ngi lay ñu ngi lay dalal ñu ngi lay dalal di leen euh, massaw coono parce que salle bi gis nañ ni xat na bëri na nit waaye nag euh, <laughs> président Idrissa Seck xëy na dayo bi moo toll noonu ci membre yëpp tey defe naan membre yëpp ñëw nañ ak communiqué bi koy installé sax dafa doon wax en la présence de quelque invité invité peut-être ràññee nañu ci ñi ñu jot wax ñi ñu euh, euh, sam bu wax léegi Aminata Aminata Aminata Tall Malick Gakou ak ñeneen euh, fan lañu toll ci installation président Idrissa Seck di Saprera. jërëjëf doyen Abdoulaye <laughs> Cissé xaw ma sax ndax doyen laa la war jeune doyen instant bi may wax ak voilà waaw instant bi may wax yow ki nga xam ne mooy vice président vice président bu. ku euh, conseil économique social et environnemental moo doon jël kaddu muy bay di añ bay di añ xam nga ne vice président bi di dalal ki nga xam ne mooy président Idrissa Seck di wax également lan mooy war a nekk taxawaayu li nga xam ne mooy euh, euh, conseil économique social et environnemental ak lan la xaar Euh, loolu ñuy yaakaar ci homme d'expérience ñuy jàpp ne euh, mën na ko indil bi nga xam ne mooy institution bi loolu yëpp nag ci euh, ndigalu président de la république noonu la ñu ko déggee noonu sax la ko waxee ci ci tubaab doyen ñu toll nii nag eh, am na ko wax nga ko sànq am na ay invité ñu ku mel ne Aminata Tall eh, ñëwoon na fi Malick Gakou eh, également ñëw na fi dégg nañ sax ci discours yi ki nga xam ne mooy vice président bu conseil économique social di remercier invitation bi nga xam ne président Idriss Seck nee nañu invité na ko képp ku fi mës a jaar te mës a jiite li nga xam ne moom mooy institution bi waaye nag ci ñi ko mës a jiite ñëpp kenn rek moo ci ñëw di présidente honoraire bi di Aminata Tall fu mu nii nag euh, may wax ak yow ki nga xam ne euh, moom mooy vice président bu conseil bi euh, pare na discours am instant bi nag am na keneen ku jël discours xanaa nag ñu yegg si biir ba xam kan la ci nga xam ne moom mooy membre conseil bi nga xam ne moom moo war a jël discours dalal ki nga xam ne moom mooy également président du conseil économique social bu yees bi nga xam ne moom mooy le président Idrissa Seck Abdoulaye di sa merci kon ñu jàpp ni cérémonie bi tàmbali na. présidente honoraire bi nga xam ne mooy Aminata taal nekkoon sax présidente conseil économique social moom la Aminata Touré Mimi wuutu woon bu yàggul moom moo nekk présidente honoraire bi xëy na loolu gën na justifier sax teewaayam ci bés bi bokk na ci ñiy représenter aussi certainement euh, les corps yi nga xam ne ñoo constitué notamment les organisations socio-professionnelles dinañ ci am kàddu parce que ñetti catégorie ñoom ñoo composé ñoom ñoo composé assemblée bu conseil économique et social xëy na ñoo ñëpp ku nekk day am sa représentant bi nga xam ne nii moom mooy jël parole buñ ca jógee nag xëy na la ñuy dalal président Idrissa Seck moom dinañu am discours am discours d'installation bi nga xam ne ni moom moom lay def ñu dégg li mu wax ak xëy na ca lay déroulé programme am lu mu namm def conseil économique social xëy na équipe la ni ñu ko waxee moomul ñi nga xam ne nii ñoom ñoo fa nekk ndax 120 membre yooyu tànneef la ci tànneefu nawle ndax ay nit la yoo xam ne dañ leen a tànn ci seen catégorie socio-professionnelle 48 personnes euh, qualifiées ci ni ñu koy waxee te ñooñu ñu réew mi yëpp nangu la ni. qualifié nañu ci li ñuy liggéey. tout ñu mën li ñuy liggéey donc mën nañ leen a nangul seen xam-xam seen xalaat ki nga xam ne moo ko jiite kay moom la ñuy xool ndax dana incarner institution bi am déet ci wàllu boobu Mbàkke wax nañ ko waxati ko lan mooy tax ñu mën a yaakaar ni conseil économique et social bi dina décisif xam nga am na ci ci arsenal juridique du conseil économique et social article 4 bi nga xamante ne nii ba tey jii jëfeewuñu ko te muy lu am importance ci wàllu démocratie participative ndax léeg-léeg lu bëri jëpp fii ci biir réew mi mu naqari nit ñi ñu bëgg ko waxtaanee xëy na amuñu fu ñu ko waxtaanee bëgg kilifa yi wax ci xëy na buñ ko taajee ci pénc ma nekk assemblée nationale wala feneen dana baax conseil économique social environnemental article 4 bi may na kuy sénégalais bu coow jógee wala lu yitteel jógee loo xam ne ni conseil économique social war na cee wax boo fexee ba juróomi junni nit signé pétition war nga mën a saisir conseil économique social moo bi ci débat xëy na loolu dana doon loo xam ne. peut-être lu mën a yokk suuxat suñu démocratie ak démocratie participative bi nga xam ne moom la ñuy woote yaakaar nga enfin ñu mën ko jëfee président Idrissa dox ci wàll boobu. waaw man am naa njort bu rafet ci présidence Idrissa du conseil économique et social et parce que sooy xool son parcours politique soo xalee sa vie c'est quelqu'un d'une extraction modeste. qui est parvenu grâce à une formation pointue mën a accéder au plus hautes responsabilités auditeur de formation xam na lan mooy économie parce que cër bi mu njëkk am ci dans un gouvernement mooy ministre du commerce donc xam na lan mooy koom ak lan la mën a àndil njëriñ xam na njëriñu njàng ak fan la njàng mën a yóbbu nit euh, xam na lan mooy environnement parce que dañuy fàttali ko rek bi muy nekk premier ministre ba jël hélicoptère team mi yi nga xam ne ñoo nekk Thiès xam ne lii miin la koom la mais day yàq gàncax gi day yàq alam bi ba mu interdire ko donc kooku su àndeek ay champion xel mun na nangu mun na nangu que dalañ def liggéey mu mucc ayib ah, am na pétition de 5000 signatures bu nga xam ni saa yu ko benn groupe wala benn dëkk wala benn kuréel àndee mu jox obligation conseil économique et sociale mu xool lan mooy seen mébét ak lan mooy seen soxla ah, mën na sax bañ a yegg foofu. parce que il suffit simplement nga présenter un sujet d'une manière pertinent ñun loolu ñu def ci benn ànd indi sujet bu nga xam ni boo ko waxee argumenté ko képp ku la déglu jarul sax muy xaar juróomi junni signature mais dina xam ni kii li muy wax lu waxu la. Mbacké à un moment amoon impression ni ci benn ànd que ni bu ñu la tànqamluwul aussi xëy na bàyyi bàyyiwuñu la xel donte de temps en temps mën nañ la recevoir. waaw mais ba ba ñuy ànd ak yow sax léegi léegi ñu kii la ko ne la da ngay jëflante gaay ak yooyu mais est-ce que amu impression ni à un moment mhm. yitte la lu soxal askan wi la mais dégluwuñ la ci topp ñu la ci. mbiru environnement yépp la ci senegal maa ngi lay wax sànq ci matinal bi soo demee Richard Toll Dagana ba yegg Kolda nga ñëw Almadies Pointe des Almadies la les Mamelles. Mm-hmm. ba yëgg Kédougou des quatre points cardinaux du Sénégal yépp am na ay problème problèmes environnementaux citoyens yi koy porter dañuy am yenn saay conscience que ñi war a décider dégluwuñu leen seeni nopp dafa sakk li koy sakk nag mooy intérêt économique yi mm-hmm. wala am lu leen tënk ci wàllu droit wala ci wàllu intérêt ba du ñu bouger mais ñi mel ni ñun dañuy fexe lu déboucher seeni nopp conseil économique et social bi nag day nekk béréb bu nga xam ni képp ku ci amati problème environnement wala social kese mm-hmm. wala même problème mu santé nit ñi dem fa mën la déglu andil la kilifa gi yore ndomba tànk googu nga wax ak moom directement mu tontu la parce que ci yeneen milieu yi fonctionnaire yi nekk ci diggante bi wala agent yi nekk ci diggante bi mën nañu biaiser wala ñu traversir sa pensée de sorte que ni ñu lay présenter en fin de compte da ngay mel ni quelqu'un qui est contre le progrès alors que yow njëriñu askan wi rek moo la tax a jóg ñun bi ñuy tàmbali benn ànd dañu doon wax étudiants yi c'est des empêcheurs de tourner en rond nangam nangam mais boo demee tey gàdd ngomeen paysan bu la waxee li muy jànkonteel yow mën nga porte combat am ba ñu dégg la soo demee fa ñuy sotti acide ICS bi nga xam ni puune dafa bari. Mhm. en terme de RSE entreprise bi ñëw na tabaxal leen centre de santé mais amul personnel amul médicament mais ñooñu ku porter seen combat laajul mille signatures euh, li ñuy ñaan président Idriss sec ak ñi nga xam ne ñoom la àndal liggéey bi en plus des études. nañuy def des actions de terrain ñuy dem di gisal seen bopp parce que am nañu capacité d'autosaisine nit ñi waxuñu ci. Mm-hmm. assemblée nationale mën na leen dénk dossier gouvernement mën na leen dénk dossier mais ñoom am nañu sañ-sañu woo ministre de l'information et de la communication ni ko lan mooy problème audiovisuel Sénégal lan mooy licence su télécommunication yi lan moo tax élevage bi doxul lan moo tax pêche bi am na problème loolu mooy capacité d'autosaisine ñoom am nañu sañ-sañu woo ku leen neex ci dëkk bi nag laaj la naka la doxee problème mu ndaw yi li ci président wax démb ñoom am nañu sañ sañ woo ministère de la jeunesse woo ministère de l'emploi wut expert indépendant mu gëstu leen lan moo tax programme d'insertion de la jeunesse yi depuis vingt ans ñu ngi am problème depuis mille neuf cent quatre-vingt quarante ans sax boo ko xalee ñu ngi am ay jafe-jafe parce que mënuñu répondre aux aspirations des jeunes donc soo amee possibilité boobu ñu saisir la nga am autosaisine population bi am aussi possibilité de te saisir directement par le biais de 5000 signatures boo ci àndeek pas-pas ak jiital intérêt Sénégal mën nga def liggéey mu ci ayib. xam nga xëy na euh, benn ñu xalaat ni institution yi duñu dox ci loo xam ne nii arrangé wul wala boog ñiy jiiti réew mi doxuñu ci mën na indi xëy na euh, dualité comme ni ñu koy waxee c'est-à-dire que bu conseil économique social. bu président Idrissa Seck doxee ci yoon woo xamante ni nii wuy gàllankoor yoon wu président de la république jëlul la est-ce que mënuñoo yóbbu ci euh, lu mel ni li fi xewoon donte sax bi yoon pouvoir yi président de la république moo ko yor euh, est-ce que dafay yem ci rek li nga xam ne nii mooy cëram ci recommandation avis consultatif walla li mu représenté moom mën na ko permettre mu fexe ba avis yi muy joxe aussi ñu jëfee ko. waaw euh, kër gi conseil la tudd. Mhm. xel ak xalaat moo fa jiitu. ñu am président la république est-ce que du am frustration. non booy conseiller te nga gis ni la ngay conseiller vraiment amul lu luñ ciy jëfee luñ ciy doxee luñ ciy waxee du am frustration. non du am frustration su ma jiitalee li ma xam ci président Idrissa bi président Macky Sall faloo 2012 ba ñu waxtaan. daf ni ko boo ma laajee sama xalaat en tant que chef de parti ci ni réew mi di joxee dinaa la ko jox soo ko jëfee baax na boo ko jëfewul baax na. boo bëggee fàttali yooyu damay fàttali yeneen ok ñu dem déglu président Idrissa Seck parce que tàmbali na wax. conseil que j'ai à Rebeuss <laughs> représentant madame la présidente du Haut Conseil des collectivités territoriales. Monsieur le représentant de Madame la Présidente de la Commission nationale du dialogue des territoires, Monsieur le Premier vice-président du Conseil économique, social et environnemental, et je confirme, cher condisciple du lycée Van Vollenhoven et peut-être meilleur élève de la classe. <laughs> Honorable député, vous, êtes meilleur élève parce que vous êtes resté dans le monde des affaires et je suis allé m'embourber en politique. <laughs> Mesdames, Messieurs les membres du Conseil économique, social et environnemental, honorables élus nationaux et territoriaux, chers et distingués invités. Mesdames, Messieurs, je voudrais tout d'abord rendre grâce à Dieu. Ensuite, exprimer mes remerciements à Monsieur le Président de la République son excellence monsieur Macky Sall pour la confiance qu'il a placée en moi à cette station de proximité et de loyauté. Je voudrais vous remercier, vous, les membres du bureau du CES, vice-président, secrétaire élu, président de commission, ainsi que vous tous, très chers conseillers, mandatés ici par vos organisations socio-professionnelles d'origine ou par la confiance de Monsieur le Président de la République. Je voudrais, Madame la Secrétaire Générale, associer à ces remerciements l'ensemble du personnel du CES, président de la République, ni les résultats de nous attendus par le peuple sénégalais. Je voudrais également rendre un hommage appuyé à toutes les femmes et à tous les hommes valeureux qui m'ont précédé dans cette mission à la tête de cette institution de feu maître Léon Boissier Palan à madame Aminata Touré, en passant par d'autres illustres figures, parmi lesquelles je souhaiterais citer le président honoraire Famara Ibrahim Sagna, à qui nous devons ce siège, et bien évidemment ma très chère sœur et amie, la présidente Aminata Tal. Je voudrais dire à tous ses prédécesseurs que c'est sur les fondations de leur legs que j'entends continuer à mener avec l'ensemble des conseillers et membres du personnel ma mission. Je voudrais enfin remercier l'ensemble de nos compatriotes qui ont émis des avis sur le choix que j'ai fait d'accepter de diriger notre institution. Je suis attentif à toutes les opinions exprimées, de manière bienveillante ou pas, car j'y vois une source précieuse d'enseignements destiné à faire de moi une meilleure personne et un meilleur leader. à nos compatriotes qui s'interrogent légitimement sur le fondement de ma décision, je leur réponds ceci. Face à certaines circonstances historiques, il faut dépasser l'attitude vaine du spectateur stérile, pour citer Aimé Césaire. Il faut également dépasser l'attitude de la résignation et de l'exigence sans cause. Lorsque la nation a besoin de ses fils, ces derniers, à l'image du soldat et du policier prêts à risquer leur vie, doivent répondre à cet appel. Il faut agir au bénéfice exclusif des populations. peu importe le pour notre propre image ou même notre vie, qui au regard du destin d'une nation demeure une insignifiance. Il s'y ajoute que la compétition électorale de 2019 est derrière nous. Le contentieux qui en est issu a été éteint par l'ouverture du dialogue national et les résultats remarquables qu'il a produits. S'agissant de mon intention antérieurement exprimée de ne plus accepter une nomination par décret, j'ai appris d'un grand soufi que la nécessité crée l'exception, même en religion. L'homme peut se prétendre maître de ses intentions et de ses actes, mais son destin relève de ce que les croyants appellent volonté divine et que les non-croyants pourraient nommer contexte, circonstance ou situation. Cher Beidi, vous l'avez rappelé, notre pays, à l'image du reste du monde, y compris des plus puissants, a subi le choc terrible, inédit de cette Covid-2019 avec son cortège de conséquences économiques et sociales jusque-là inconnues. Aujourd'hui, comme hier, ma réflexion et mon action plus sur les solutions à apporter aux difficultés des citoyens que sur la polémique. Ceux qui attendent encore à la gare 2019 doivent réaliser que le train est au loin. Il s'élance du quai 2020 en route pour 2035 et au-delà, s'il plaît de la longue et enrichissante audience qu'il bien voulu m'accorder, pour recueillir ses directives, orientations et attentes, j'ai pu retenir que le sort de la jeunesse, particulièrement celle qui se tourne désespérément vers l'émigration clandestine, est au cœur des préoccupations de Monsieur le Président de la République. La lecture attentive du communiqué du Conseil des ministres tenu hier en atteste à suffisance. Je prie pour que l'aspiration légitime au bonheur, à la prospérité et à la réussite qui anime les espoirs et les rêves de notre vaillante jeunesse, nourrie de Djom, de Ngor et de Fit, puisse un jour très prochain se réaliser pleinement en terre sénégalaise et africaine. Je m'incline à nouveau devant la mémoire de nos enfants à jamais disparus en mer. Chers collègues, le président de la République et l'ensemble de nos compatriotes attendent de nous que nous fassions du CES une institution utile aux yeux de tous. L'ordre du jour de tous les travaux du Conseil, deuxième Assemblée constitutionnelle et Assemblée consultative auprès des pouvoirs publics, tire son origine des trois sources que sont la saisine par le président de la République, le gouvernement ou l'Assemblée nationale, mais aussi l'autosaisine par les conseillers eux-mêmes et plus fondamentalement le mécanisme de la saisine citoyenne au moyen d'une pétition portant 5000 signatures. Au service de notre mission d'examen de propositions de réforme, de dialogue et de coopération en faveur de la politique économique, sociale et environnementale de la nation, avec la participation de l'ensemble des forces vives représentés dans notre Assemblée, il nous faudra faire davantage preuve d'humilité, d'ouverture et de disponibilité pour une écoute appropriée des préoccupations, demandes d'avis ou d'études de son Excellence Monsieur le Président de la République, de son gouvernement, de l'Assemblée nationale et de tous les citoyens sans exclusive. écouter les Sénégalais, entendre leur voix, identifier leurs attentes, les relayer à qui de droit en vue de leur satisfaction effective, car l'écoute est la porte d'accès à la connaissance qui révolutionne et éclaire les actions. Rien de ce qui préoccupe nos compatriotes ne doit échapper à notre attention. une même, mère anéantie par le tragique naufrage de son enfant, son affliction sera entendue ici. Un jeune au désespoir face à l'échec ou à la déperdition scolaire ou accablé par le chômage, son découragement sera entendu ici. Un pêcheur inquiet, anxieux, et perplexe au sujet d'accords internationaux de pêche qu'il considère comme une menace pour son travail et pour la pérennité de nos ressources halieutiques, son inquiétude sera entendue ici. Une femme victime de violences impunies basées sur le genre, ses plaintes seront également entendues ici. Un enfant victimes de maltraitance ou d'abandon, ses pleurs seront entendus ici. Un citoyen depuis Kédougou exprime des complaintes, nous les entendrons. Ce sera pour notre Assemblée consultative la meilleure façon d'accompagner les choix de Monsieur le Président de la République, de son gouvernement et de l'Assemblée nationale dans la définition et la mise en œuvre de politiques publiques les meilleurs possibles. Chaque avis émis sera porteur d'une solution efficiente qui puisse valoir à l'autorité la satisfaction des citoyens. Mesdames, Messieurs, chers invités, à la suite d'une relecture approfondie des textes législatifs et réglementaires nous régissant, et après échange avec des citoyens de toutes obédiences politiques, de toutes confessions et de toutes catégories socio-professionnelles, j'ai pu davantage appréhender l'étendue des attributions et missions du CES, ainsi que les préoccupations et attentes légitimes des Sénégalais. J'ai également eu à connaître les parcours académiques et professionnels des femmes et des hommes qui animent le CES. J'ai pu en tirer la certitude de trouver au sein de cette institution les talents, l'expérience, l'expertise, les vertus, ainsi que les qualités humaines propices à une bonne conduite de la mission assignée. Ils nous permettront de nous prononcer sur les problématiques les plus saillantes et les plus ardues aux fins d'émettre des avis pertinents permettant d'y faire face efficacement. Ainsi, pour montrer la richesse, la diversité et la représentativité dans notre institution de toutes les forces vives de notre pays, je voudrais, à titre d'exemple, faire remarquer que quand M. Baïdi Agne parle, la voix des patrons d'entreprise est entendue. Quand messieurs Modi Guiro, Madame Bassok ou Sidia Ndiaye parlent, celle des travailleurs l'est aussi. Quand Maître Moustapha Ndiaye parle, les notaires sont entendus. Quand Monsieur Oumar Ba parlera ici, les collectivités territoriales seront entendues. Car à l'instar des autres membres du CES, ils sont tous, et vous tous, dépositaires de la confiance de leur père et de celle de Monsieur le Président de la République. Soyez assurés, mes chers collègues, que j'entends tirer de cette riche de tirer de cette riche expérience un avantage et je vous remercie par avance de la disponibilité, du dévouement et de l'engagement que l'examen de vos parcours académiques et professionnels respectifs m'autorise à bien des égards à en espérer. De même, j'ai eu le grand plaisir de découvrir parmi le personnel, Madame la Secrétaire générale, l'existence de ressources humaines de qualité capable d'apporter aux citoyens plus que ce qu'il coûte aux contribuables. Je veillerai pour ma part et avec le soutien de tous à ce que les conditions de travail du personnel comme celles des conseillers soient telles que vous finirez par préférer les lundis au samedi. l'ouverture du CES aux meilleurs du secteur privé national comme international lui permettra d'affronter avec plus de sécurité et d'efficacité les sujets les plus complexes de notre temps. Chers conseillers, le premier thème dont le président de la République m'a entretenu, c'est l'emploi des jeunes, l'émigration clandestine Et il a naturellement ajouté les inondations récurrentes, l'érosion côtière induite par les changements climatiques et la gestion de nos ressources naturelles, notamment celles pétrolières et gazières. Nous devrons aussi nous intéresser aux formidables potentialités qu'offre la révolution numérique, compte tenu de la nécessité de bien préparer nos enfants et petits-enfants au monde de demain qui sera dominé fortement par l'intelligence artificielle. Il en de même du désir de souveraineté, vous l'avez rappelé, le Premier vice-président. Cette crise Covid-19 a réinstallé la question de la souveraineté au cœur de toute réflexion en matière de politique publique partout dans le monde. Au demeurant, il nous revient de tout mettre en œuvre pour que, florissants et nombreux, soient les merci formulés par nos concitoyens à l'endroit de l'État et de sa plus haute autorité. Mesdames, Messieurs les conseillers, je suis d'emblée rassuré qu'ensemble, nous veillerons à assurer la tenue régulière des sessions ordinaires du CES conformément aux dispositions qui les régissent. Toutes les urgences retiendront notre attention. Ensemble, nous nous attellerons à travailler avec tous les autres segments de l'État et les institutions sœurs dont je voudrais saluer et remercier les représentants ici présents. Dans la recherche de l'efficacité dans notre action, une attention particulière sera accordée au renforcement des partenariats et aux synergies qu'il convient de développer avec les institutions de recherche, les universités, le réseau des évaluateurs des politiques publiques, les entités du système des Nations Unies et avec toute autre organisation engagée comme la nôtre à accompagner la formulation et la mise en œuvre des politiques économiques, sociales et environnementales. Parmi nos chantiers prioritaires, il nous faudra aussi œuvrer pour le rayonnement du CES au plan ouest africain, continental et mondial. Cet objectif sera atteint par le renforcement et la revalorisation de ces contributions scientifiques au niveau des cadres fédérateurs des institutions internationales sœurs comme l'Union des conseils économiques et sociaux d'Afrique, l'Union des conseils économiques, sociaux et institutions similaires francophones et l'Association internationale des conseillers économiques, sociaux et institutions similaires d'Afrique. Mesdames, Messieurs, à cet instant, qu'il me soit permis d'adresser pleinement et entièrement toute ma gratitude à l'endroit de nos khalifes généraux et de son éminence l'archevêque de Dakar, aux chefs religieux traditionnels et coutumiers pour leurs prières qui nous ont toujours accompagnés. Je me réjouis particulièrement de la présence parmi nous de Serine Chouaï Boumbake, fils du vénéré Khalif général des Mourides, accompagné de Serine Modou Rokaya et de Serine Saliou. Je voudrais exprimer une gratitude empreinte d'émotion à l'endroit de mes cousins Mam Malik Si et Abdourahman Si, fils de feu le vénéré Serigne Cheikh Ahmed Tidiane Si Al Maktoum, qui me vaut le surnom de Mara du fait de la volonté inébranlable de ma défunte maman à me prénommer Marabou Cheikh suite au choix de mon père de me déclarer à l'état civil Je ne saurais terminer sans exprimer mes sincères remerciements aux ministres, directeurs généraux, directeurs, chefs de service, aux parents, amis, alliés. Merci Malik d'être là. À toutes celles et tous ceux qui ont bien voulu rehausser cette cérémonie de leur présence. Pour conclure, je voudrais vous réaffirmer que dans l'exécution de cette mission à moi confiée par le chef de l'État, mes oreilles et mon cœur seront toujours ouverts à la vérité et aux idées novatrices et constructives pour le développement socio-économique de notre très cher Sénégal et je vous remercie de votre aimable attention. mbokk yi ma jéema tënk tuuti li ñu fi wax ci wolof ndax ñi ñuy liggéeyal suñuy làkk lañu gën a dégg làkku tubaab yi ginnaaw nuyoo bi ak sant yàlla gi ak bëgg lool ci teewaayu kilifa yi fi ñëw yépp di sant itam suñu mbokk taskatu xibaar yi nga xam ni ñooy jottali suñuy kàddu askan wi li ñu fi wax dafa am seen soxna su ma woo ne ma waaw li ñu li la jox moom nu mu tudd ma ne ko conseil économique social environnemental mu ne ma gudd na de mbaa diisewul noonu <laughs> ma ne ko kon del wax ses rek boo nee ses rek puisque ñii dañ naan CSE ñi naan mais ses moo gën a yomb boo jëlee taxi boo ne ko ah. voilà ñii ne seize mais man daal ses comme ndaw si bi ma ko nee seize daf ni ma ses ma ne ko ses baax na <laughs> lu lu lu lu ñuy liggéey pour askan wi askan wi daf ko war a xam war koo mën a war koo mën a tudd may rafet lu seen teewaay yéen ñépp di rafet lu dogal bi suñu boroom dogal suñu waxtaan président de la république ak man jur ñu jàpp ni fi suñu réew toll li mu laaj du kii taxawee nii kii taxawee nii wante mooy boole suñuy xalaat boole suñuy doole suqali suñu réew muy décision bu am solo boo xam ni jur na nag coow lu bari wante coow li li muy bari bari lépp ñett rekk la benn bi mooy ñi nga xam ni dañu ma sopp yéene ma jàmm mbir mi xew bett leen ndax du lu ñu mënoon waxtaaneek ñoom avant muy sotti ba nuppi ñuy xalaat naan waaw ñun fi ñu la yéenewoon di ko séentu ndax lii du ci doon gàllankoor ñooñu li may dalale seen xel mooy li ma samay kilifa jàngal sëriñ taxaa daf ni ma sa boroom moo la gën a xam sa bopp moo la gën ci sa bopp kon bu wareef taxawee defal rekk sama nijaay sëriñ Cheikh daan wax ni nit ki bu bëggee noppalu day nangul yàlla xareñam ci namm-nammam lu mu namm ci moom rekk mu ñaan mu tàggat xolam xolam nangu loola donc soppe yi nga xam ni dañoo amuk jaaxle ci lii ma def nañu dalale seen xel loolu te xam ni namm namm boroom ci jaam romb na pexey jaam ñaareel mooy citoyen yi nga xam ni ñoo moom réew mi dénk ko ay nit wax nit ñooñu ñu yoreel leen réew mi ñu xëy gis président de la république woo opposition waxtaan ñu xëy dégg nouvelle ne Idrissa Seck dugg na ci gouvernement bi ñooñu nga xam ni faruñu fenn bokkuñu benn parti li leen ñor mooy waaw ñii lii ñu def ci kaw seen bopp lañ ko defal pour régler seen problème yi bopp wala ñun lañu ñu bëgg a saafaraal suñuy jafe-jafe ñooñu li may dalale seen xel mooy ñu gëstu suñu jaar-jaar gëstu fi président de la république jóge ak fi mu egsi gëstu fi ma jóge ak fi ma egsi bu ñu ko seetee ba seetantal ko dinañu xam ni kenn ci ñun sañu la bañ a bàyyi xel satisfaire besoin population bi na ko sëriñ Cheikh daan waxe rek loo xam ci ku umple njariñul jariñe boo bëggee jariñu li ci gën a gaaw mooy nga jariñee boo jariñee rek jariñu kon nag citoyen yi nga xam ni lii seen préoccupation ñoom mooy ñu saafara seeni jafe-jafe nañu dalale seen xel loolu en attendant liggéey bi di jur résultat yi ñu yaakaar ñetteelu catégorie bi indi coow li mooy ñi nga xam ni li ñu def jàpp nañu ne dëppoowul ak seen njariñ walla seen projet ya ñu amoon li ñu def faagaagal na ko ñooña ñaari catégorie ci am catégorie bii ay citoyens patriotes lañu yu bëgg Sénégal ni ñu ko bëggee am ay xalaat yu woroo ak suñu yos ñooñu li ñu war a séq ak ñoom mooy waxtaan teg ko ci teggin ak orma ak yar puisque woroo ci ay xalaat tekkiwul noonoo wala tojante bopp Serigne Cheikh daana wax ni Sénégal dañoo mën a xeexale xam-xam yi te duñu leen xeetale te dañoo war a xeetale xam-xam yi bañ leen a xeexale ki nga xam ni am na opinion bu woroo ak sa bos danga koy nangul opinion défendre sa bos danga koy nangul opinion defendre sa bos loolu mooy dundal démocratie mu des ñi nga xam ni nag mooy deuxième catégorie bi ñooñu seen intérêt bokk walla ay intérêt yoo xam ni état bi day dogal lu leen neexul ak lu dëppoowul ak seen intérêt ñu bëgg jël ay xale yu nekk ci ak ndóol manipuler leen def leen jumtukaay bu ñu xeexee état bi ñooñu dañu war a xam ni nous veillerons politiquement et étatiquement à ce qu'il ne puisse causer aucun grand mal, seulement une nuisance par leur langue. Il faut que ñu xam ni ñooñu li ñu war suñu diggante ak ñoom mooy fexe ba lu weesu wax ñu bañ a mën a lor réew ndax stabilité bi ñu am ku dawee feneen sa xel Sénégal lay jàpp liy développé koom-koom muy investissement bay di mën na ko firndeel kiy dugal xaalisam ci bërëb di ci yaakaar dara la muy njëkk a xalaat mooy ndax fii ma koy dugal dana tàkk walla du tàkk parce que bu dee day tàkk du ko fa dugal kenn du jël sa alal di ko dugal ci sébb buy tàkk ñaareel bi mooy ndax am na ay opportunité koom-koom ñetteel bi ndax am na sécurité juridique et judiciaire ñeenteel bi bu ma ci dugalee sama ñaar fukk yi kañ laa ciy jotaat te bu ma ciy jotaat ndax day yokk wala day wàññeeku donc kiy investir balaa dugal alalam loolu lay xalaat bu fekkente ne dangaa nekk ci sous région boo xam ni ñu ne fii mu ngi tàkk fii mu ngi tàkk fii mu ngi tàkk ñu ne ah fii de moom am na jàmm te lii ñu def pour sàmm suñu jàmmu réew ci la ñépp di mujj ku yebu xool li xew feneen te ku bàyyi sa bopp ak yàlla vraiment doo def ay calcul di wax ne lii ak lii moo moo am Famara Ibrahima Sagna nga xam ni vraiment yàgg na ma xelal daf ma wax bërki dem mu ne ma nit ki ñett la suñu boroom tëral mooy yéene jëf ak dogal yéene ak jëf mu bàyyi ko ci suñu loxo dogal yàlla teelu ko boppam yéene naal am projet jëf li nga mën lépp pour projet ba antu nangoo dékku sacrifice ak coono ya mu laaj pour mu antu boo defee ñaar ñooñu ba pare am na leneen luy xew loo dul yëg luy tax projet ba antu wala mu bañ a antu donc ku ku ku di seetal bërki démb watara présenté Gon libali premier ministre am ne mooy candidat wane ko parti ba investir ko ñépp ñetti weer des ci suñu borom ñëw ak dogal gon bokkatu kon loolu moom dañ koy war a bàyyi ci loxo suñu borom may digal ñi ñu àndal ñépp ñu bàyyi loolu te concentré wu ci liggéey bi nga xam ni situation bu bees moo am ci àddina bi économie yépp di daanu États-Unis boo fa demee tey ay millions yi nit génne nañ leen seen kër ndax mënatuñoo fay seen crédit bancaire ñu ngi nekk ci chômage te ñoom ñooy première puissance économique mondiale bi mbir mi xewee ñun ñépp a ko yëgandoo puisque suñu doom yi nekk bitim réew pour daan seen doole dimbali seeni waajur fii ñoo njëkk a yëg coono bi transfert yañ daan def muy ñëw Sénégal dafa nërmeelu ba ñun ñoo obligé di leen dimbali ñoom en sens inverse ci projet bi nga xam ni président de la république tëraloon na ko pour ne nañu leen jàppale y compris ñi nekk ci diaspora bi donc situation bu bees boobu bu taxawee nga nekk fi naan bu ma defee lii danaa ci am ay jam-jam danañu ma def nii ñu ma def naa kooku jaaduwul li war rekk mooy futeeku xeex ak situation bi xalaat boole xalaat yi pour tabax suñu suñu réew bu ñu bu ñu bu ñu paree ci loolu li li li yàlla di def moom moom moo ko xam mu des ma bëgg a leeral askan wi njariñul ses boo amee sa xalaat am sa coono am sa problème au lieu ngay dem ci mbedd mi nangam nangam groupe citoyen bu nekk bu amee 5000 signature sañ na ko yóbbu ses ne leen sama mbir mii kat xalaat leen ci puisque gouvernement bi tëral na loi sàngam wala projet sàngam wala programme sàngam programme boobu jural na ma loraange sàngam bëgg naa ngeen dimbali ma ci mu saafaraw ñu ñëw fii waxtaane ko comme ni ñu ko waxee ak ay experts yoo xam ni non seulement seen xam-xam màcc na ci lañu daan def mais dañoo liggéey lu yàgg ca loola dama amoon benn professeur bu may wax ne va chercher les matières grises dans les têtes grises parce que dans les têtes grises la matière grise a côtoyé le vécu et l'expérience donc loolu moo nekk fi toutes les organisations professionnelles socio-professionnelles sont ici plus une quarantaine de conseillers nommés par le président de la République plus la possibilité les ressources financières d'accéder à l'expertise extérieure maanaam euh, am nañu moyen yu ñu fekke benn expert ci boo xam ni xalaatam ñépp nangu nañu ko ñu ne ko mbir sàngamkat ñëwal dimbali ñu ci bi nga xamee ni séq naa ak président de la république waxtaan bu yaatu pour seet lan mooy ay directive maanaam nan la bëgguñu ñu liggéeyee li mu ma njëkk a wax mooy lii ngeen tudde mbëkk mi maanaam xale yi dem ci géej gi nañu nañu ci réfléchir nu mu gën a gaawe xam lan moo ko sabab est-ce que ñàkk liggéey la programme emploi yi nangam na mais daal nañu ko nañu ko gëstu na mu gën a xóote jox ko ci suñuy xalaat donc loolu sujet la boo xam ni danañu ko waxtaane fii mbënd mi inondation yi loolu war nañu ko waxtaane indi ci ay saafara mbël mi maanaam brèche bi nekk Saint-Louis nga xam ni suñu côte beeg yëpp mu ngi mu ngi yàqu mbuur noonu et cetera changement climatique yi am di indi yooyu nan la ñuy def ba ba ba waxtaane ko yooyu ak yeneen donc ëmb boobu ma fa jëlee ca waxtaan wa dama koy jébbal bay di ak bureau bi ñu seet tëral suñuy ordre du jour respecter suñuy procédure def suñuy session organiser ko ci ni ko texte yi tërële texte yi it bi ma laataa egsi yër naa ko muy constitution bi muy loi organique bi muy décret yi nan la tabaxe kër gi ak nan la ñuy liggéeyee yër naa itam ku ci ne ci yéen sa jaar-jaar yër jaar-jaar yi con euh, personnel bi foofu ma bëgg fii taxaw tuuti puisque dañu ne Idrissa dafa ñëw dàq ñi def non dama bëgg a leeral ni fii du ñu fi def dara lu dëppoowul ak loi passation de service amul ma waroon a jot këyit gu ma wax li ma fi fekk lan la lan laa fi fekk ci compte yi lan laa fi fekk ci meuble yi ak li li ses am lépp lan la ki ko yoroon waroon ko bind ci ay këyit signé ko wax date bi mu ko siñee parafe ko loolu fekkuma ko fi bi ma ko fi fekkul itam wax naa ko ki ma ko war a wax mu ni ma defal sa situation de référence ci loolu laa santaane fa yam mais fuyewuma gestion ma sàmm taluma loolu li ma tal mooy ëmb ba ma jëlee ci waxtaan wi ma ma jéem a seet nu ma koy lijjante mais daal lu dul ma dem ci bibliothèque bi ci archive yi seet yan xalaat la fi Aminata Tall def yan xalaat la fi Aminata Touré def yan xalaat la fi Famara def yan xalaat la fi Boissier Palan def Magatte Lô euh, Guirassy et cetera pour jéem cee jël bala may euh, wax loo xam ni ndekete defoon nañ ko bu yàgg te yëguma ko loolu dinaa ko def mais fuuye naan gestion bi nii loolu du sama liggéey du du du ko def bëgg naa bëgg naa leeral loolu bu ma defee daal situation de référence bu leer sant ko ñi ma ko war a sant man danaa ko signé date ko wax ne lii laa fi fekk bis bi ma tàbbisee ci kër gi jërëjëf jërëjëf merci beaucoup ñuy gërëm aussi suñu mbokku 7TV vraiment ci ñoom lañu jëlee signal bi ñu continuer suivre euh, discours président Idrissa ah, Seck. naa mu leer puisque dégg naa ci ay ay wax yu bari. secretaire général bii fii laa ko fekk wante du ma ne ndax kii ko fi indi kaa ko fi indi dama naan ndax li ma bëgg pour président mi ma wóolu ba teg ma fii. dootul amati ci dundam ku mu war a mën a gën a wóolu ndax qualité liggéey bi ma koy jox ñi ma bëgg ñu jàppale ma ci ndax man nañu ko wala déet bu ñu ko manee rekk jeex na bu ñu ko manee dama ko nekk di wuti keneen xam xam nga voilà loolu daal moo loolu daal moo ci moo ci am importance léegi nag ma wax ne ma wax ne débat politique bi jeex na léegi vraiment puisque dañoo dem waaw am na ku sàkku woon ci man ma leeral ne ndax maa musa wax ne damay tas kër gi ma ne ko déedéet musuma ko wax boo ko waxee na ko génne fu ma ko woone sama programme xam nga eh, dañu ne dama bëgg ay aaya mais léeg-léeg daf koo laaj in jaakum fasiqun bi nabain fa yenu bu bu bu saay-saay ñëwee bett la ak xibaar bala nga koo jël di ci juger nit leer lu ko ba pare ba mu wér la leerlu ko ba mu wér parce que diw nee na ma nee na lii nee na laa nee na lii waaw da naan ko d'abord indil ma fi mu ko waxee parce que lu may wax eh, ki ma yar ci politique daf ma daan wax je suis un homme nuancé je suis très nuancé bi may wax décret dootuma fal waxuma décret dootuma fal puisque loolu ci dogalu yàlla la ne dama ni fasatuma yéene décret di ma fal boobu fasatuma fasatuma yéene yow oh damay bàyyi xel dogalu yàlla man sama yéene laa moom sama yéene kay sama yéene sama yéene laa moom ak sama góorgóorlu ak sama samay pexe wante li ci des nag moom dafa dafa am borom donc vraiment suñu suñu mbokk yi ku ñëwati rek ne la Idrissa nee na nee ko fu mu ko waxee rek ba nga déglu bu baax li ma wax puisque dégg c'est très important bu dégg amee déficience xam-xam manqué moo tax yàlla mi xarañ di boole ay turam en général day wax samiun alimun c'est-à-dire l'audient l'omniscient qualité dégg dégg mooy def qualité xam donc da di déglu vraiment en tout cas ñi ñu sopp daal ànd ak ñun muy njabootu président muy sama njaboot nañu jàpp ni ñun daal dellu nañu mel ni mburoog soow ba ñu nekkoon <laughs> gis nga loolu loolu loolu loolu mooy dëgg gi loolu moo xew bi ñuy bi waxtaan ci ci jàlbeen dañ doon wax yeneen xalaatuñu woon egg si fii dañ doon wax ay statut de chef de l'opposition dugg na fi génn na fii wante nag bi ñu xamee ni gindikoo am na gindikoo gi leer te wér kii xam na ci dara ca ca suñuy jamono waaw ñoom benn la woon voilà léegi nag jaar-jaar am na moo tax euh, président Famara daf ma dénk ñaar bi ma ko ziyaare jee daf ni ma sama rak la ma la daan wax ba ñuy lijjanti mbiru Abdou Diouf ak Ablaye Wade laa lay wax mooy gumba du jommi léeg-léeg gumba du jommi puisque du gis li koy jommal ñi la bëgg a jommal bu ñu defee seeni pexe melal di gisoo ko rek defal fatuus mu teg ci ne ma mu ne ma li ma lay dénk mooy ngeen fexe ba ràññee puisque dafa am ñoo xam ni ils son sont que bu fekkente ne ñu ngi troubler les eaux am ñu xam ni bu ñu xëyee suba ba ngoon dañuy nage dans les eaux troubles ensuite ñu jéem a fexe seeni kilifa nager en eau trouble ñun nag ku troubler sam ndox di jëfee boo ñu ca woowee ñu bañ safara donc pour mu pour pour mu leer que liggéey moo ñu fi indi urgence yi bare na xale yi di di ñàkk liggéey ñëpp la metti c'est une priorité une surpriorité nationale économie numérique bii ñuy wax ci àddina bi suñu doom yi ca la dund ca tàngu Karl max ay économie euh, révolution industrielle lañ doon wax ñoom ñuy théoriser l'exploitation de l'homme par l'homme révolution bii di ñëw nag muy révolution numérique l'homme sera presque économiquement inutile puisque l'intelligence artificielle va le remplacer dans la plupart des métiers loolu mooy li ñuy xaar ñu war a waajal suñuy doom ci loolu ensuite fii ak at ñu am ay ressources gazières pétrolières nan lañ koy def nan la ñuy fexe ba aaru suñu bopp ak suñu réew pour que ñeneen ñoo xam ni fu richesse yooya am ñu jéem fa indi ay jafe-jafe pour teg ca loxo ñu moytu loolu donc yooyu mooy li am solo léegi nag li li li ma wax mooy 2019 coow la jeex na compétition la woon électorale ku nekk saam sa programme ñu ñëw ci sénégalais yi nga xam ni ñooy jënd ñu jox kii 58 jox kii 20 séddalee ko noonu ba mu sotti waaw léegi kon coow loolu jeex na bi mu jeexee ñeenti candidat yi nekkoon opposition sama kër lañu daje Ousmane Sonko Madické Niang Sall ak man ñu bind bataaxal ne résultat yi d'accorduñ ci loolu ubbi contentieux électoral maanaam werante ci ndax nangu nañu wala nangu contentieux boobu itam jeex na bi dialogue national ubbee puisque bu ñu neexoon ñu ne du ñu dem dialogue national dañuy dem ci mbedd mi wala ñu xaar ba yeneen élection mais du ñu nangu mais nangu nañu dialogue national donc débat boobu jeex na moo tax ma bëgg moo tax ma insister pour yooyu question ñu xam ni dootuma ci dellu si lu ñuy lu ñuy wax daal na nekk ban njariñ la ñu mën a amal suñu réew lan la ñuy ajouter comme valeur ci problème yi nga xam ni moom la réew mi jànkonteel di sant ñëpp di gërëm ñëpp di gërëm suñu mbokku journaliste yi di wax ne nag léegi liggéey mooy tàmbali avec les membres du bureau et avec l'ensemble des conseillers et avec l'ensemble du personnel du CES li ma wax ci personnel bi itam ci tubaab ma baamtuwaat ko wax ko ci conseillers mooy daal dinaa fexe ba xëy altine gënal leen noppalu samedi insha allah jërë ngeen jëf di di sant bu baax suñu kilifa diine yi teew ak kilifa yi fi nekk yépp di sant xarit yi ak mbokk yi jërë ngeen jëf merci beaucoup monsieur le président je voudrais demander à l'assemblée de rester assis le temps de permettre au président de se retirer et je voudrais aussi informer les journalistes Je pense que vous serez d'accord avec moi que tout a été dit <laughs> waaw kon defe naa ne daf doon wax ni rek du jaar président di waxaat ak journaliste yi parce que wax na lépp effectivement euh, dégg nañu wax yi président Idrissa sosec euh, ci cérémonie d'installation bi nga xam ne def na ko ci teewaayu présidente honoraire bu conseil économique social et environnemental. di madame Aminata Tall ci teewaayu ay invité ñu ràññee ci Malick gàkku moom président Idrissa Seck sax mu remercier ko de façon nominative moom El Hadj gàkku bi nga xam ne moom la bokkal coalition Idy 2019 di leader bu grand parti suñu correspondant suñu reporter yi nekkoon euh, conseil économique social peut-être mënoon nañ ñëwaat ak ñun sax waaye ñu jàpp rek fàttali la ndax baamtu na ko ci wolof moom président sa Seck defe naa ni waxal na ko boppam kàddoom bu njëkk mu ngi ko jagleel président Macky Sall ci gërëm ko ci kóolute bu mu am ci moom mu wax ni station de loyauté la et de proximité maanaam kóolute bu mu am ci moom la te nangul na ko ko ak it proximité maanaam jegeyaale boo xamante ni am na ko ci nasaraan nag discours am vraiment remercier ne ñi ko jiitu ci institution bi yëpp ba ci Aminata Touré tudd na ko ci wolof nag tudd ko waaye loolu xëy na fàtte la rek ndax français dafa nekkoon ci discours am bu ñu bind donc mën nañ jàpp ni loolu moo nekkoon ci xel mi mu fàttali it ni choix bi nga xam ne nii def na ko ci gunge président Macky Sall ci bi mu ko woowee moom. méngale na ko ak soldaar bu ñu woo ci réew mu toll diggante nee na foofu amatu ci xel ñaar ci ni mu ko waxee ba cité ci Aimé ci xalaat bu mu doon am ci bu réew tollee diggante ñu woo ki nga xam ne ni soldat la réservice la mu war a wuyu ji réewam pour taxawu ko loolu amul xel ñaar moom président Idrissa Seck loolu la wax nee naa ci leneen li nga xamante ni nii moo nekkoon yéeneem ci ne bëggatul falinu décret bu dul ci yi nga xam ne nii waxoon na ko mu ne nag jàppe na ni jàmm bi ak bëgg-bëggam waaye nag yàlla ak dogalam moom yéene moo nekkoon bañ a nangooti fal boo xam ne nii décret moo koy fal waaye nag loolu yéeneem la woon ba tey waaye nag yàlla moo dogal situation réew mi toll fii ba ñu woo ko ci décret boo xam ne nii falin la mu nangu ko ndax tolluwaayu réew mi dellusiwaat na nag ci li nga xamante nee na moom la président Macky Sall njëkk waxtaan ak moom te tax mu nangu mu dénk ko ni ko bëgg na mu wutal ko solution wala ñu waxtaanee ko wut solution ci ñàkkum xëyu ndaw ñi ñàkkum xëyu ndaw yi teqalewu ko ak li nga xam ne nii moo xew tey di dem géej bi xale yi di jël gaal yi di dem géej loolu bokk na ci lu mu déggoo ak président Macky Sall pour ñu wut ci pexe fexe it ba di dégg sénégalais yi di leen déglu di leen dégg écouter les sénégalais entendre leur voix di leen dégg ak it di ko jottali fañ ko war a jottale relayer à qui de droit nee na yii mooy doon mission wu conseil économique et social bi nga xam ne jiite na ko fu ressources humaines am nag boo xam ne mën na leen dimbale ci seen gëstu nee na am nañu moyen jëli ko te moom gëm na ni xam-xam bu sell xam-xam bu laab donc moo mën a jëriñ Sénégal donc fu mu mën di nekk. pour dimbale conseil économique social bi moom dana ko wuti mook ay nitam donte nangu na ni conseil bi am na ressources humaines yu valable yoo xam ne liggéey bi ñu leen dénk war nañu ko mun a def ndax nee na bu dee këru liggéeykaay njaatige yi la béy di añ bu waxee waxal na njaatige liggéeykaay yépp secteur privé bu dee syndicat yi la ma dem ba sokk ma nga fa toog bu dee euh, ñi nga xamante ni ñoo di euh, safrla syndicaliste yi Sidie Ndiaye ma nga fa toog bu waxee xëy na waxal na mbooloom syndicaliste yëpp ak ñeneen ak ñeneen ak ñeneen mu yaakaar ni laal nañu kon secteur yi nekk ci biir réew mi yëpp loolu la président Idrissa Seck wax baamtuwaat ko it ci wolof te jàpp ni dana ci xar tànku tubayam Mbacké Seck Euh, discours bi lan nañ ci jàpp discours politique la aussi parce que bon ci wolof waxtaan la ah mais waxaale naa soxlaam ci li nga xamante nii junj nañu ko sànq ci acte yi nga xam ne posé woon na ko mu gën cee xaw a peut indi leeral ci ni li tax mu bañ a toog fekku fi li nga xam ne nii mooy passation de service ba mu njortoon ci digganteem mag soxna Aminata Touré ndax nee na fekku fi lu mu ko signeel wax ko lii laa fekkoon lii laa fi bàyyi signé ko te pourtant gis nañ cérémonie passation de service bu am ci teewaayu inspecteur général d'État comme ni muy amee ci fu passation de service di am loo ci dégg yow. waaw dañuy bàyyi si question boobu nga mujjee wax rek inspecteur général d'État bi mu waxtaan ci. ñooñu ñooñu nag du ñuy faral di wax ñoom xam nga. waaw yow yow am nga ay moyens yoo defee gëstu bi ci loolu. <laughs> mais lan nga dégg ci waxu Idrissa Seck. waxu ku am colère la parce que. sant na gërëm président de la république bi nga xam ne moom la sénégalais yi jox pass pass ak sañ-sañ. mi nga xam ni moo ko jox fii mu toog nii tey war a liggéeyal Sénégalais yi dégg naa ci discours Idrissa mu nawloo ñi nga xam ni ñoom la bokkal liggéey bi parce que benn yoon ñaari yoon ñett yoon wax na leen cher collègue sa à man ak yéen ñoo bokk yan bi war ko jëmee fu neex Sénégalais yi dégg nañ ci discours am que ñi nekk conseil économique et sociale environnemental waa CES ko e ni ñu ko waxee yore liggéey bi muy employé ku ci ne li sa cër ak sa compétence ak say aptitude dana la fa bàyyi nga liggéey normalement ba noppalu liggéey moo la koy gënal parce que di nga am des meilleures conditions de travail dégg naa ci discours am ñekk ko fa jiitu lañ doon liggéey la ca baax dana ko téye dana ko gëstu dana dem ci bibliothèque bi dépoussiérer documents yi la fa Famara liggéey la fa Aminata liggéey la fa Mbaye Jacques liggéey